ah jàmbaar jàmbaar maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay la ziar di la baalu bu baax a baax a baax di baalu képp ñu fi teew rek déranger wu ndax Fadel. moom. lu ko waay defar rek jàll na parce que Fadel ñëpp la. mag la ci âge mais morom la ci jëm. ak ci xalaat parce que tey morom la boo déggee mu wax loolu mooy. moom rek laay gis ci mag bu toll ni moom nangoo bokk ak xale yëpp nit mënu ko wax lu ko dépassé même tey boo ko merloo sax doo ko gis ci moom mooy dem émission ñëw di la laaj ndax baax na wala baaxul ku professionnel rek ay def loolu mën naa ne moom mujjee mujjee mujjee génn mais tey li def amaana ñu ko fi njëkk sax amuñu ko tey bëri na reporter làmb yi nekk si làmb ji pendant des années kenn mosu leen tuddee bis kon moom mënul ñëw defu ko fi sax at yu mot ñu tuddee ko làmb ko liggéeyam rek moo moo ko waral waaw nit ku nekk tamit li nga liggéey rek ngay fayeku ñu ngi koy ñaanal yàlla bis bi jikkoo yàlla nga ñëw booleeg moom parce que mën naa ne ku am ni ku am ku mel ni Fadel bu nekkee ci yow di liggéey ak yow da ñaan yàlla toujours mu nekk yow doo ñaan yàlla ñàpp parce am turmal ni ko am nga képp ku fi ñëw tamit ngir bis bi fay la yóbbu. lu mu liggéey yaa ko monté li mu liggéey boo yeggee mooy ki mooy ci nekk ki mooy ci nekk mu jël responsabilité bu tooy ni teg ko sama kaw ne ma doxalal lu la neex defal. may def te lu ma def neex na ko. may ñaanal DG Dakar Buzz yàlla na dem ba raw canal 24. ndax jàmbaar nga ndànk yaa ngi liggéey. di gërëm nag Omar. di di gërëm di gërëm Ahmed di gërëm Malick di gërëm rédaction bu Dakar Buzz yëpp di gërëm presse bi nag. nga xam ne maa ngi ñëw yëpp bi yàgg na ci la gërëm yow yàgg na Bécaye xam nga lii dafa neex ndax xew la gis say bokk dafa neex wéetuma ci maa ngi ñaan drapeau bi yàlla nañ ko at di ko def ay téeméeri drapeau tam ànd ak mbégte kontaan naa ci yéen mais tey gis na ne macha allah say mbokk jóg noonu ànd ak yow mais dafa am ko xamante ne ku spécial la si yow muy sa soxna ah laal nga laalaakee li ma naan tamataña a ko. gannaaw te dëkk dëkk moo. kii moo toog ci naaj bi kër gi fekk ko fi. damay ànd ak man lii lépp amu fi. mu muñal ma nag jàppale ma. nee naa ko rek daa naa wax nag benn wax. ko wax lebal kuy fay moo gën ndax boo lebalee kuy fay lu bor ba yàgg-yàgg daa la fay. moo ma lebaloon tey laa koy fay. faal yàlla yàlla bàyyi ma ak yow. muñal nga ma suturaal nga ma jàppale nga ma. tey kanam la jëm. jigéen di woo ma. waaye sant yàlla loolu moom di ñaan ndékki. faal yàlla sa jàmm yàlla. barke yàlla macha allah. c'est février laa ñu tuddaat ma Saint xam nga Saint Valentin maa ko di gërëm presse bi nag mais mais li di ma parce que doo lay jënd ndox su ma xaalal ma ne yaa ñu bëri xam nga ku ñuy wax ay amane ay ay ay sama jabar ji doo jël gudd fan lool ànd koog sama yaay nag laam dama gàdd ma sàmm ma tàndu ba dund doyul di gërëm sama néegu ndey di gërëm sama néegu baay di gërëm DG nag maa ngi jaawo di gërëm Alé Niang di gërëm Adama ci Espagne Fall borom Napoli

toujours pare nañu écrit bàcc séeréer di farle ne drapeau Fadel bu Dakar boobu nekk suñu confrère le grand ko mi ngi door toujours pare daal di posté combat bi na tàng ñaari xale attention toujours pare doon Ousseyn Ndiaye doon na sàcc ko jàppante nañ ñoom ñaar toujours pare Ousseyn Ndiaye attention toujours pare génnee na ko mi eh, ngi xeex mi ngi xeex ñoom ñaar eh, Ousseyn Ndiaye doon na waaye booy rek su ñaay aso tout près daw na jëm sa xap mu bañ ak Ousou Ndiaye bëre ñoom ñaar attention kaw attention bekkaay attention kaw Ousou Ndiaye oh. entre les deux protagonistes dama fàttali ni sama xarit ngi jàppante attention Ousou Ndiaye dé ku baax xale bi dëkk yaraax farel bu Dakar bo ay teranga nekk suñu frère daw leen ngeen abonné seen Sénégal Mak TV attention su Ndiaye mi ngi xool xam na ko mu bañ mag mi di fëri service ba xale ñu ngi bëree bëree bu métti nga xamante ne ni mooy attention non non attention doxoy daan doxoy daan ba daay toujours prêt daan attention toujours prêt daan su Ndiaye numéro 2 bëree na bëree bu rëy toujours prêt daan su Ndiaye numéro 2 ba gaay day jaay ba gaay bu la neexee jaay ndeysaan xale baa ngi jaayu Bécaye toujours vainqueur eh, Bécaye Ndiaye numéro 2 defal lu le premier détenteur du drapeau Fadel de Dakar Buzz mi ngi noonu